Moussa. Moussa Loum waxtaan Feeraay wala nga dégg. yaa ngay waxtaan. arbitre wax ak na leen man maay maître du terrain. li lamb nangook li lamb di boole sifflet moo leen di leen xat ma tag gàjji bokkul ci lamb weq. ak mbëkk. nee leen da pare ngeen. waaw. arbitre lay waxtaan ak ñoom. nee na leen xat matt ka waaw at kolmaj. xam nga kolmaj. ak taabooy ñaan la kolaj ko kolaj ko taabooy. arbitre nee leen kolaj amul si wéla seen diggante. diggante feeraay. saan buuru Saalum loolu mu ko saan buuru Saalum. at fe at feeraay yi. feeraay. saan. Toubacouta. atte na leen ab. Toubacouta. Toubacouta. Toubacouta na nga xam ne lii du lamb simple. arbitre sifflé waat na seen diggante. arbitre sifflé waat na seen diggante ñoom ñaar. hee Toubacouta Ferraille Toubacouta Ferraille buuru Saalum buuru Saalum wala nga doon naa leen wax buur siin mu ngi buuru Saalum waaye buur Saalum tey dugg na Pikine buuru Saalum dugg na Pikine hee buur Saalum dugal na eh, ñoom ñaar ñu ngi lew too Njaga Caam moo ko indi Njaga Caam moo ko indi nekk ci Pap Diop Boston ko xarit yaay moo ko indi waaye Alfali Sele mele moo indi arbitre nee na leen bëre leen dafa guddi Sele moo indi Toubacouta Fadi Sele moo indi Toubacouta Fadiga de oh. moo nga ca biir Fadiga ndeysaan Moussa Faye xool leen Moussa Faye borom équipe nationale 66 équipe nationale ndeysaan Feeraay Toubacouta Feeraay Toubacouta Touba wa ngi dox ci kawam. Feeraay ak Toubacouta. Feeraay Toubacouta. tantan booy Feeraay bu yàqu. xeex waa Touba de xeex bi pour waa Touba mii lu Touba di. waaye Touba. Feeraay la Feeraay buub. Feeraay day buub. Eh, Feeraay Toubacouta. Feeraay Toubacouta. soo xoolee Feeraay dafa ñeme Toubacouta. feeraay ay eh, fii du moom de fii nekkul feeraay bu yàqu bu jaay waaye Salim Petit Sélé dama ko interroger mu ne ma feeraay moom kenn xamul lan la dañ ko kenn soxlaw feeraay ah feeraay am nañu ko soxla feeraay Toubacouta non ñi ras feeraay soxla nañ feeraay am ko le Toubacouta feeraay ñi ñëw gisoo feeraay ah waaw ñuy feeraay ñooy xeex am njaay joxal Diop eh Toubacouta ba door mu daan doom mu daan feeraay waaye Toubacouta feeraay samp na jaaga suul ay eh, tànkam. tuwaare daa samp jaaga. daan feeraay feeraay. feeraay ngay door. tuwaare eh, feeraay jàpp na. feeraay jàpp na. takk na ko takk na ko takk na ko Touba eh, Toubacouta daan na feeraay Buur Saalum daan na feeraay Buur Saalum daan na feeraay Buur Saalum daan na feeraay Buur Saalum daan na feeraay ah, Toubacouta eh xoolal Sélé Mélé eh. bi mooy dixième combat am ndeysaan ndeysaan daan na Ferraille Toubacouta daan na Ferraille Toubacouta